merci merci d'avoir choisi la meilleure chaîne du net mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen euh, jaajëfal bu baax a baax ci seen choix renouvelé sur la chaîne des leaders. Euh, muy doon mbégte kontante saa su ne rédaction bi di àndoo ak yéen ci ay jotaay yu leen di dimbali ci seen dund ak seen nekkin mais également ci di amaak moom jotaay Zos la champion Zos borom Sénégal mais également Zos borom buzz bi quand même euh, jëmm joo xam ni. du ñu tay di am ak moom jotaay c'est un plaisir ñu am ak yow beneen jotaay aujourd'hui sur la chaîne des leaders. ay merci le plaisir est partagé. Mm. Euh, di santaat yàlla rek di jull Seydina wa salaa wa salaam. di sant Sénégal di sant monde entier. Mm. vraiment di sant sama sëriñ sëñ Moussa Nawel. yàlla na yàlla na fi mm. sama papa yàlla na ko yàlla xara ajara sama yaay yàlla gudd fanam ci yaay yëpp ak papa yëpp ci ko ñaanal ñëpp. di sant sama gis jëwriñ jëwriñ Serigne vraiment di kontaan si aussi seen buzz. merci. yéen a ngi def liggéey bu am importance aussi euh, vraiment di sant aussi seen sponsor yu mel ni. ni ko doon waxee. chic et classe d'ailleurs chic et classe d'ailleurs tey man ak yow dañ koy joxe ah. franchement chic et classe daal mooy loolu yaa ma gën a xam. chic et classe classe mooy vraiment. Mm-hmm. shop bi nga xamante ne tey moo ñu solal. Mm-hmm. xam nga soppe ñu. Mm-hmm. vraiment. ok di kontaan rek quoi. mais yow déjà tey laa découvrir sa secret rek même Zos toog nga fii ñu naan Zos léegi intellectuel lay woote di def ay cos or que yaa ngi chic ay classe quand même nekk ci sa bopp Zos. waroo mais xam nga tey ku ñeme rek dañ laa dee. ku ñeme. Hmm. dañ laa dee donc tey su ma ñëwee lu mel ni chic et classe jël ne carrément les plus interview yi ñun ñoo koy gérer. Mm-hmm. lépp li nga xamante mooy sa image ñoo koy gérer. a mm-hmm. ceeg seen bës loolu dafa neex ba dee. surtout donc maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax fii la mm-hmm. donc voilà sooy soriwul tam bi rond right. macha allah en tout cas regret ni euh, mooy chic et bi nga xamee ni communication entre guillemets bi nga xamee ni. Euh, ñu ngi koy gis ci Zos léegi quand même da ngay wax français tu vois ce je veux dire heure boo defee UTV quand boo defee interview quand gis nga polémique bi muy juraat dans les réseaux sociaux ñi ne gis ni njuumte de communication dafay am ci français wala récemment ak sortie bi nga defoon ak euh, Senbuzz gis nga 54 continents yi d'ailleurs mën nga ñu dikkal quand même lu waral loolu Zos bêtises yi nga xamee ni askan wi gis nañu ni quand même euh, la yoo xam ne yaa ngi koy représenté ci langue français ak ci sa communication bi ngay def waaw xam nga l'erreur te nit aussi nit day juum. yàlla rek moo dul juum ñun ñëpp ay juum suñu borom rek moo dul juum tey su ma defee yow sax da nga yow yow yow yaay téye coupable. ci lan. parce que yow. Uh-huh. su ma defee erreur war nga ko war nga ko dagg. xam mm. nga yow si si laa ko defee. mais wax nga ko l'erreur humaine quand même entre guillemets. waaw lan moo tax daggoo léegi. yow nga ñëw dugal ko fii pour gaa yi di ma si jàpp kañ. xam <laughs> mm. nag. nit bu xamee ne nit nit nit nit yàlla rek moo dul man daal loolu vraiment gisuma ci benn parce que dama bëggoon wax rek euh, les cinquante cinquante cinquante quatre pays de l' Afrique parce que les gens ils ont l'habitude de de de de de d' expliquer naan ay cinquante deux état wu États-Unis xam nga Afrique ëpp ko doole foofu. Mm. xam nga nekk cinquante quatre pays ñu war a véhiculer message boobu ñu ne si jot loolu laa si jublu woon. mais tey man moom dañuy yàkkamti moo tax léegi il faut mooy. nan la lay def da lay métti. daf lay neex wala nan lay dundee voilà. <laughs> da nga yeewu rek ñi envoyé la affaire yi yow doo comprendre. Mm. ku ne naan la tojoti nga fi wala affaire yi ba noonu xam nga te man vraiment. Mm. dama ñëw rek pour véhiculer ay message yoo xamante ne lépp lu may wax boo ko vérifié dëgg lay nekk. lépp lu may wax duma wax dara loo xamante ne vraiment ñun dañu nekk ci domaine sensibilisation. Mm-hmm. mooy di waxtaan ak di encourager élèves yi xam nga di waxtaan ak ñi nga xamante ne vraiment xam nga war nañ waxtaan ak ñoom parce que ñëpp ñëpp aussi comprendre ñu mm-hmm. donc ñun ñooy nit yi nga xamante ne dañu war a ñëw di waxtaan ak population sénégalaise bi. Mm-hmm. mais mën nga juum fii moom boo juumee wax la wax laa rek am nga problème léegi au lieu ñu focaliser wu ci message bi léegi léeg lañ lay toog a jëloon toxee di la toxee chicha xam nga loolu tamit. mais nan nga dindee idée bi nga xamee ni nan ngay dundee idée bi nga xamee ni moom la Sénégalais yi am quand même ci euh, daanaka di am complexe quand nit kuy jàng kuy làkk français di def ay fautes wala di communiquer comme ni nga ko waxee entre guillemets ñoom ñuy gis ni njumte lay doon quand même cest à la wala nan nga koy dundee da nga gis ni voilà quoi. comme ni nga waxee dañu war def comme ailleurs. dafa am ñoom dañu amuñu esprit de dépassement. Hmm. xam nga parce que dafa am yoo xamante ne nii c'est un peu terre quoi donc il faut que ñuy focaliser wu ci le message message bi nga xamante ne moom la ñu war a focaliser wu mooy l'essentiel communication bi. Mm-hmm. man su ma déglu boo gisee tey euh, ma mën exprimer en france waa en anglais. Mm-hmm. sama jàng niveau d'étude tollu foofu mais li ma ko may mooy déglu ba pare déglu l'essentiel te pare bañ ci boole caaxaan. donc man mën nga wax xeebu ma kenn ci waxtaan nag boo waxee pare damay capter li nga xamante ne. moom mooy l'essentiel wax ji. Mhm. loolu laay jël vraiment denc ko comme kii mais fii erreur la ñuy xool. Mhm. parce que ñun yi ñoo war a def effectivement li nga wax loolu la ñun ñi ñoo war a dépasser yenn affaires yi ñëw naa fi ci santé. Mhm. ñu leen affaire gulo bi rouge ñu commencé di ko jàpp kañ. te pour pourtant loolu message bu jege CNTS. san national de transfusion sanguine mooy ñu jox message bi. ma koy véhiculer aw ma droit wax ci santé loolu dëgg. yaa ngi dégg keroog moo tax le professeur Saliou Diop dafa génn bu synthèse ne leen carrément effectivement lii leen le littérateur wax dëgg la booy manager au bout de trois ans le nouveau sang revient hmm. mais nag nit ñi aussi c'est pas tout le monde ñoo mel noonu hmm. parce que am na nit yoo xamante ne aussi c'est des nit classe yoo xamante ne dégluñ détail quoi ñoom dañ naan takk déglu la xool fi ngay weexee ñi kapp bind hmm. c'est des intellectuels mais am ñoom te ne seen cerveau seen niveau cerveau moo toll foofu ñoom lépp la jàpp kaañ dëj sax dañ ciy kaañoo. ndax gis nga ni lu ñu baaxawul woon la rek quand même nga nekk mbër ba jël li nga xamee ni mooy sa distance en tout cas ci làmb ji nga ñëw bëgg représenté waat loo xam ni aussi xëy na sénégal yi baaxawuñu quand même di am culture lutteur de manière générale di ko représenté ndax loolu gisoo ni joué na ci tamit. waaw parce que xam nga laa considération avant des ay actuels donc y une grande différence parce que euh, peut-être bu njëkk mën nañ ne euh, nit ki mbër bi mën na bañ a jàng wala mën na bañ a éveiller à ce point. Mhm. mais on a plus on est plus dans ce monde. donc monde bi ñu nekk actuel. Mhm. mooy ñi ni nekk au courant ce qui se passe. voilà euh, genre di mën a véhiculer message yi nga xamante ne nii tey mooy jëriñ population parce que ñun ay exemple lañ. Mhm. boo gisee ñi bay ay criss cross ay tubéy def yenn yi yëpp. parce que ñin ni dañuy roy donc bu dul dara ñaari bu doon ñaari supporter sax am naa ko. ñoo dañ lay roy loo def dañ koy def. gisoo ne li nga bëgg représenter quand surtout euh, lu jëm ci li nga xamee ni moom nga bëgg dimbalee ak ministère de la santé jaadu na quand même yeneen acteurs yi nga xamee ni yéen a bokkoon secteur nga joxanteeg ñoom loxo gën leen a jege ngir ñu jàppale la ci sa combat waaw actuellement boo gisee sax euh, bu njëkk euh, nangu moon ñëw rek songu mbër yi parce que mbër boo fi dugg këram rek naa ko ay cent cent bu ñu comprendreul dañuy dañuy dem naa leen ay société jël seen dret yi xam ñoom comprendre ñu bëri genre il faut message kii lancé message bi mais parce que euh, sama yaay dañ ko mës ñëw ne ko day jël deretu nit ñi. Ah taw moom comprendreul mhm. bi ñu ñëwee après. ci laa ma ne ma yow looy doyee deret ni ma ne ko non lii man yoolu man def ma prélèvement man sensibilisation laay def mhm. sensibilisation boobu noonu mhm. donc synthèse mooy def prélèvement yi mais ñoom par exemple ñoom li ñuy expliquer population bi mhm. ak li am bokkul moo tax ma mën a nag jël sama euh, mën a ñëw jël ay véhiculer ay message mais yaa ngi jéem a lëkkaloo certainement ak euh, écuries yi nga xam ne ñoo fi nekk ak euh, également yi nga xam ne ñoo nekk ci lamb ji quand même wala yow juste yaa ngi doxal rek jéem wut accord ak ñoom aussi. waaw moom laa wax ne man moo tax ma ne dans les premiers temps. Hmm. dama dama dama ñëwoon ci musiciens yi. parce que maa ngi ci defoon benn maa ngi ci lëkkaloo woon ak Simon. Simon waaw Simon vraiment moo ci jàpp bu baax a baax ak bii baala rappeur donc euh, après ci la dem def tournée artistes yi dem ci Canabasse dem ci Dégé ci dem ci Matador dem ci Ngaaka Blindé dem ci Adjouza dem ci euh, Mame Ngor Diazaka dem ci Thione Seck euh, dem si aussi El Hadj Keita Keba sek vraiment ak Abdou Jude sek xam nga ñëpp def ci ay affaire yu am solo. Hmm. voilà ba ci Wally Seck récemment sax xam nga pare na aussi pour ñu liggéey ci ñoom ñëpp pare nañ parce que dañu commencé comprendre concept bi. affaire don sang nu mu sensibiliser waaw non moom laa wax ni xam il faut nga njëkk a touché dafa nga xamee ni xëy na à la base ñoom ñoo waroon a jiitu quand même ci sa ci sa doxalin non nee naa su ma tëb xanaa ma xëj tëb tëb dem CNG donc da nga ragal ni boo fa demoon ñu jàppee ni certainement yi ku mel ni Wally Seck or que c'était normal premier temps bi quand nga njëkkee ci say mbokk je vous ai dit que ne sont pas sensibilisés mais su ma xëyee tëb tëb ñu dugg kër mbër naan ko dañuy jël sa sang. loolu xaatuma ko sax mu ko def. mais euh, actuellement comprendre nañu affaire don de sang yàlla jaarale na message ci man ba ñuy véhiculer message bi de ñu bëri ñu ngi ko comment comprendre ne deret boo dee jigéen chaque 4 mois war nga may deret boo gisee règle. Mm-hmm. boo dee chaque mois chaque war nga may deret boo bu dee yaa ngi am bonne santé. te boo mettre au bout de trois heures de temps deret du jeex au bout de trente le nouveau sang revient. avec des globules rouges ça te fait ndax deret mooy màgget ci donc may deret bi da lay rajeuniral jaamu yàlla ba pare nga ciy ay vie ba léegi léegi maintenant droit de manger avant de donner hmm. donc c' est c' est le très important da ngay lekk ba suur léegi may deret nga bañ a lekk nag lu niin ay lu mel ni nga. jël euh, pain mayonnaise pare def ci ay pare lekkaat lu ay beurre wala dara. Hmm. sans lu niin loolu la bañ daal. est-ce que gis nga ni sensibilisation bi ci état bi waroon a def lu jëm ci maye deret euh, quand amul lu des boo jëlee réew bu mel ni Maroc dëkk yi nga xam ne entre guillemets xaw nañu développé tuuti quand dangay gis ni même ay camion la ñuy teg quand même bokk na ci di sensibiliser nit ñi que ni dafa am ñoo xam ne dañ koy soxla euh, gis nga ni amul lajj boo xam ni am na ci état bi lu jëm ci sensibilisation maye deret. waa aussi loolu xam nga état moom euh, état citoyen ñoo mën a dimbali état. parce que actuellement comme li nga wax Maroc euh, Rwanda nekk nañ dëkk yoo xamante ne développé nañ trop côté boobu te ñun pourtant ñu ngi ñu ngi ci biir Afrique euh, projet bi maa ngi ci depuis 2017. Mm. donc affaire bi xawoon jël ay yéex. ñu naan ma bu doon tubaab mooy gën a gaaw. actuellement aussi état mooy li nga wax ñun ñoo mën a dimbali état mooy nit état da nga koy indi projet. jeunesse bu ne war na def comme Zos war na def comme keneen ak keneen mooy état ñu mën a ñëw vraiment jàppale leen ci seen programme indi leen programme boobu ba nag souvent volume bi dina yéex mais je prends mes propres moyens souvent je prends mais mes partenaires aussi yi nga xamante ne nii euh, yu mel ni j'adore léegi actuellement ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci partenaires yi voilà en tout tout cas leader yi la chaîne des leaders xam nga ni mm-hmm. képp kuy leader rek nekk ci réew mi ak foo mënti féete mm-hmm. dañu lay tàllal loxo joxanteeg loxo bokk na ci ki nga cité léegi Abdoul Aziz Ali Ndiaye ak Chic et Classe également bi nga xamee ni fii la ñu nekk fan la ñu nekk exactement Chic et Classe euh, la chaîne des leaders nga xam ni kenn lañu tamit ñoom it ci la chaîne des leaders fekk si ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Ndiaye ak rédaction Sen ki la wax rek ànd ak aussi ñi nga xamante ne dañu xam ne acte société société nga xam ne dañu comprendre mm-hmm. euh, acte humanitaire. Mm-hmm. Euh, lu mel ni euh, comme ni ma ko waxee Abdou Aziz Ndiaye ak Jadoram mm-hmm. donc d'accord ne si initiative bi ñëw pour jàppale ci ku mel ni aussi sunu xarit euh, DG wu PDG wu PECTP aussi nga xamante ne pare na aussi pour euh, vraiment jàpp ci. BTP ñoom ci lan la ñuy yëngu ngir. ñoom BTP la ñoom ñooy gros porteurs yi ñooy gagné marché tali yi. am hmm. ñoom defe nañ pas mal de yi nga xamante ne ñoo nekk ci ci àll bi et tout. ak ah doodaan yi et tout donc sunu hmm. benn xarit moo koy gérer. Euh, hmm. euh, pare na pour jàpp ci Masseck Thiam du ko fàtte. parce que moom ak fondation Kër Rassoul moom mooy nekk sama premier partenaire moom ministère de la santé. ñu ci njëkk a jàpp ak euh, M. M euh, MN. Hmm. MN sama xarit Bouna Ndiaye. Hmm. Bouna Ndiaye aussi. Hmm. nekk na koo xamante ne mi ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax donc di di boo gisee ñuy saluer ñooñu. Euh, comme liggéey seen bës mel nii c'est parce que. bu ñu gisee kuy saluer acte humanitaire mooy la sa pro sa programme RSE. Mm-hmm. nga jël ko def ko social. nga ma ne état sax dootu la mën a topp lu bëri parce que xam nañu engagé wu nga yaa ngi sauvé fii. Mm-hmm. c' est très important boo amee tuuti intelligence vraiment moo tax vraiment mënuma leen. alors en tout cas leader leader yi ngi fi tudd yëpp seen Senbuzz ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla kenn si ñun également wax nga ko borom j'adore mm-hmm. Abdoul Aziz Ali Ndiaye ak suñu bi nga xam ne aussi moom la ñu fekk fii ci euh, chic fii ci cité Damel. en mm. face euh, école 26. di mm. béréb boo xam ne macha allah. Mm. lépp lu waay soxla lu jëm ci sa taar boo ñëwee fii sikki nekku ci ne di nga am satisfaction ndax mën nañ jàpp ni Zoss jamono ji vu que intellectuel la commencé na carrière politique aussi. ñu xaar ci yow ci say rêve wala ci say euh, mbébét nga nekk fi nga xam ni mooy CNG. non CNG moom franchement xalaatuma ko sax bokkul sax sama programme. Hmm. Hmm. lu tax lan nga fay daw da nga dégg ni crise la dafa neexul ay wala da nga gis ni question bi ma la laajoon rek avenir u làmb moo jaratul quand même di nekk ci loo xam ni xëy na toujours dafay concerner làmb. non demul noonu sax mais xam nga milieu làmb dafa nekk loo xamante ne dafa bëri bëri ay détails yoo xamante ne par exemple comme ni ma ko waxee euh, euh, comme sëñ bi aussi. Euh, génn na ma si bëre bi donc dama bëgg lépp lu xamante ne mooy bëgguma dugal li rocci mu ñu koy waxee. bëgg nga nekk quand même. fi nga xam ne dugal gémmiñ loo ci laam xaw ma ñu koy waxee noonu. fi nga fekk baax ndax bëgg nga fa nekk njiit bëgg nga fa nekk maire pourquoi pas wala amago aussi mbébét boobu parcelle. waaw man sama carrière actuellement carrière politique ak sociale bi vraiment nekkul loo xam ne dama koy caaxaane parce que boo xoolee. Euh, su ma doon am cachet cinq cent millions aussi mënuma ko jël di ko defaree koñ bi. Hmm. lenn rek laa mën def jàppale waa koñ mooy politique. donc moo tax depuis 2017 ma engagé wu vraiment 2018 la engagé vraiment ci affaire jàppale koñ bi. Hmm. ndax boo xoolee bañ fu juddoo yaroo fa ba léegi fa jàll riñ ba nekkoon mi ngi fa. dara dara changé wu fa dara dara dara dara amul benn changement fa am donc il est temps. sunu jeunesse bi nii jeunesse bi ñëpp a jóg ne ma vraiment ñëw même bu ma nekkul mais sax ma jàppale ki nga xamante ne am nay ambition bokk na ci koñ bi xam na luy sunu lan mooy sunu problème. Hmm. voilà ñu jàpp ci am tuuti changement comme yenn secteur yi ñu amee changement am ay crèche am ay ay détails yoo. xamante donc da nga gis ni quand même doxalinu euh, maire bi nga xam ne ni moo nekk parcelle quand même ak sooxe nga fa gën a nemmeeku n'est-ce pas. non je veux dire mosul changer foofu. donc ce qui veut dire que ni satisfaction musul am quand ci maire xam ne am musul am foofu amul benn changement benn changement actuellement li may jàppale le président Idriss Seck. moom mu koy jàppale le président Macky Sall mooy vraiment jóg ñëwuñ fi nag pour pour pour xaxar kenn wala contre état on est avec l' état du Sénégal de à cent pour cent. li soxla rek mooy tey vraiment. ñu gis na carrément euh, secteur bi changé na te grâce à Serigne Saliou Ngom alias Zos moo tax mu changé loolu moom vraiment maa ngi koy ñaan yàlla. Hmm. voilà. alors euh, fii ci Chic et Classe la ñu nekk doon am ak moom jotaay Serigne Saliou Ngom de son vrai nom alias Zos c'était plaisir quand même bu amee. dernier message booy jëmale ci askan wi soppi yi bàyyi xel la chaîne des leaders lan lay doon. waa di ñaan yàlla changement am Sénégal rek te actuellement gis nañ ne volume bi muy jël mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi avancé quoi ñu ci sant yàlla bu baax. Hmm. di leen wax si on a prévu un don de sang don de sang pour le euh, janvier bi euh, au centre national de transfusion sanguine CNTS. Hmm. Hmm. Euh, Fann Résidence donc vraiment le siège bi ak sponsor yi ma fi wax ak ministère de la sant bi vraiment woo nañ ñëpp. xam nga pour ñu ñëw vraiment mais deret mhm. jël mesure mesure de barrière yi. Mhm. lépp lu ñuy li ñuy lu ñu état bi sant ci côté mesure ñu def ko mais mënuñu teree parce que actuellement chiffre baa ngi énorme ni affaire ba démb yaa ngi dégg bébé bi bi soxloon au plus. xam nga mhm. actuellement chaque jour nga gis. mais annonce yi di daw ci internet bi. te vraiment il faut ñu ñëw jàppale askan bi ndax ku fi accidenté rek vraiment bu perte sang rek. wóorul quoi actuellement au Sénégal moo tax vraiment ñoo leen jàpp journée le 16 janvier bi incha au centre national de Sanabi. message bu leer la quand même di doxin bu noble aussi euh, fii ci chic et classe la woon cité Damel en face euh, école 26 di béréb boo xam ni képp ku fi ñëw muy góor di jigéen lépp loo soxla lu jëm ci luy taaral sa yaram di ko fi fekk fii la ñu fekkoon euh, Serigne Salihou Ngom de son vrai nom alias Zos rédaction bi di la gërëmati quand même ci disponibilité bi. merci chic et classe aussi di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yokk leen ak rédaction Senbuzz Ibil Jador la ak bi beneen jotaay ci lu dara fi ndax man jaaxle naa de gën a ñëw nañu de. préparé ma dara dara dara dara dara waaye léegi nu may def ndax xaw ma. sa door mi ngi ñëw sa door a ngi mi ngi ñëw indaale vermicelle sa door mi ngi ñëw sa door a ngi indaale macaroni. doyal waay macaron vermicelle waay lii dafa neex daw leen jëndi ko waay vermicelle macaroni j'adore ku bugg lu baax lekk j'adore ak vermicelle j'adore ak dama ci doyal doo ci doyal jëlal ku bugg lu neex lekk j'adore ak vermicelle j'adore ak macaron moo j'adore lëmbe na dëkk bi yow xonoo neex j'adore moo lëmbe suñu réew j'adore j'adore indeeti na vermicelle ak macaroni ah jëm thank you